الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom jalla wa ala ñi ngi koy ñaan mu julle ca yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngallaawaay fu ngeen mën a nekk nekk leen fa ragal yàlla ba bu leen dee mukk lu dul fekk yéen a ngi jébbalul seen boroom gannaaw loolu mbokk jullit xam leen ne sunu xutbab tey bi mi ngi jëm ci fàttali jullit ñi naka lañu war a dundee li leen yàlla wërsëgal ci waxtu e waaye xam leen ni suñu borom nee na maa leen indil guddi ak bëccëg ngiree ku bëgg di fàttalu ko boroomam ci waxtu yooyu wala di ca sant yàlla ci waxtu yooyu mboolem guddi yow jullit danga ko war a profitoo ci lu lay jural ngërëmal yàlla mboolem bëccëg danga cee war a profitoo ci lu lay jural ngërëmal yàlla borom boobu nee na maa leen tàggatal jant bi ak weer wi ñu sax dakk ma indi leen guddeeg bëccëg jant baa ngi noonu dañuy fàttali suñu waru gor ci kaw suuf mooy nu ñuy taxawee suñu digganteeg suñu boroom dañuy fàttali li gën a màgg li ñuy def ci kaw suuf mooy bu jant bi dee niit ngir waaj a génn ñu naa fajar jot na kon nañ bàyyi nelaw yi nañ bàyyi liggéey ba ñu nekkoon nañ bàyyi lu mën a doon taxawal la nga xam ne mooy jullik fajar jant ba fenk na dem na ba tiim ñu ñu naa tisbar jot na nañ bàyyi lépp dellu ci suñu boroom jéng na ma nga jëm di sow yi ñu naa tàkkusaan jot na nañ bàyyi lépp dellu ci suñu boroom ci la gën a màgg lañ koy defal bu jant ba sowee ñu ne timis jot na su sowee bañ dem ba xonq-xonq yépp jeex ñu ne ah kon gee jot na ñu di liggéey balaa yàgg fajar jotaat mbokk guddeeg bëccëg mi ngi noonu jant ak weer mi ngi noonu dañuy fàttali li gën a màgg li ñuy def ci kaw suuf allahuma lu dul mbokk julit doomu aadama dafa war a xam ni dundam yépp waru koo tënk rek ci ne da ciy jagleel yàlla ay julli walay koor waaye sa dund gépp danga war a fexe mu dëppoo ngërëmal yàlla jalla wa ala suñu borom yàlla dana woo yéeféer yi àllaaxira ne leen waaw yéen ndax dundalu ma leen woon ci kaw suuf lu ngeen mën a fàttalikoo ba mën a mucc ci mbugal mën a tabbi aljanna gis ngeen loolee lu tax mooy seen dund ga dañ koo neena loon ca la nga xam ne mooy lu leen di jëriñ ci àdduna kese fàtte seen borom jalla wa ala amma bu dee jullit ñaa suñu borom ma nga leen di woo ci àddina yu kawe ya lekk leen num leen neexe naan leen num leen neexe lii de yéen a ko fagg woon ca dund ga ma leen mayoon ba ngeen nekkee ci kaw suuf ay yow mbokk jullit xamal ne li la yàlla may ci dund ñaata at la ñaata weer la ñaata fan la mi ngi noonu ñaata bis yooyu dund wala ay waxtu amul lenn lu dul dañ la ko laaj yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na balaa kenn jóge yowmal qiyaama yàlla dana ko laaj laaj yi ba ca jëkk mooy dund gi ma la mayoon ma yow doomu aadama noo ko dundee ci lan nga dund lan nga dundee ñaar fukki at di ma la mayoon ñeen fukk juróom benn fukk téeméeri at di ma la mayoon noo ko dundee nga wax ko en général ñu laaj la na ne la waaw ndaw gi nga ba ma la ci mayoon yow noo dunde ndaw ga te ndaw googee mbokk nga xam ne mooy trésor bi gën a màgg bu doomu aadama di am ci ak dundam lu nekk nga mën ko taa def ñu bëri ñay sànku te la ñu sànkoo yow sag ndaw ci loo ko loo ko jeexale gannaaw ba ñu laaj la waaw alal ji nga xam ne da nga koo am bi nga koy faggu foo jaar ba faggu ko ana loo doon liggéey ba faggu alal ji gannaaw ba it alal ji foo ko dépensé xam-xam bi ne la yàlla xamaloon ma yow loo ci jëfe mbokk laaj yi moo ñuy xaar yowmal qiyaama waaye ay alhamdulillah am nañ professeur boo xam ne bokk na ca examen ba xamal nañu question yi ñuy na reposé ba pare daal di cay dolli réponse ya bépp xale boo xam ne du dul da ngaa ñàkk chance ba ñàkk chance jeex ngay dem ci examen ñu ne la question yaa ngi nii réponse yaa ngi nii yaakaar naa war ngaa mën a gaaw lool ci at mi yonent bi alei salaam ne e waaye profitool ci juróom balaa juróom a ñëw profitool leen ci juróomi mbir balaa juróomi mbire ñëw bi ci jëkk mooy sag ndaw balaa magee ñëw ay yow ndaw xamal ne yàlla may na la trésor boo xam ne sa baay amatu ko say maam amatu ko loolee di xéewal gu réy bu ko neenal ci football ci portable ya bu ko neenal ci jaxasoo ya amul bopp njëriñ waaye profitoo ci ana lan nga ci mën a jëriñ sa bopp jëriñ ci sa xeet mbokk jullit da ngay gis ne tey ñu ngi nekk ci ay vacances waaw vacances yooyee yow ndawal jullit trois mois nga nar ko toog ndax da nga koy jël rek neenal ko vacances yi jeex ci zéro ndax yow doo ci profitoo nga jàng sa téere boroom jéem cee mokkal saari alxuraan yu bëri jéem cee xam la nga xam ne muy si diini tey jii da ngay gis place yu bëri ñu ngi fay jàngale diine yàlla ji na nga doon def bus bu nekk nga xëy école gonte école ndax trois mois yooyu doo ko profitoo jëm ci fa ñuy jàngalee diine mi ngi noonu tey jii boo ñëwoon fii xatta am na ñuy jàngale diine fii ci kaw jàkka ji dañ la jàngal bu dee da ngaa bëgg a liiram da ngaa bëgg si diine yépp ngan la waay profitoo leen ci loolu ngeen moytu lu bëri li nekk ci bopp ndaw ni heure bu ñu waxee dee rek pour ñoom magge magget yi am bijaaw ñooy dee wallahi mbokk du loolu suñ borom yàlla dee mi ngi ko commencé ci biiru yaay yi ci biiru yaay yi la commencé di faat koo xam ne nii bi ko yàlla joxe ruux quatre mois après mu faat ko kii six mois kii neuf mois kii keroog bu mu juddoo la faatu waaye yooyu mi am vingt ans vingt cinq ans nooy def ay yéen jeunesse unité vingt et un suñu borom yàlla won na leen kawteef bu rëy démb ñaari jeune ci jeune unité vingt et un kii ñi ngi ko julee ci tisbaar kii ñu julee ko takkusaan fii ci jàkk bi sës si ñun yàlla na yàlla jéggal leen yërëm leen profitoo leen kon ngeen xam ne dund gi xamu leen fu mu toll wóoru leen ndax day jeex ci jeunesse bi kon jeunesse boobee profitoo leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp ndaw boo xam ne ci sag ndaw nga dëpp dem ci yàlla na am yow ndaw foo dem ñu ubbil la foo dem ci ci programme àdduna ñu ubbil la amma yow nga dëpp dellu ci yàlla yowmal qiyaama bu yàlla dee atte ay jaamam yow dañ lay woo keral la ci keru arsh ba yàlla atte ay jaamam yow ngay doog a dem aljanna yal na yàlla boole ci suñuy ndaw kon profitoo leen seen ndaw la gën a màgg yow ndaw lay profitoo mooy jàng sa diine yonent bi alayhi salaam nee na talabul ilm farida ala kulli muslimin wa muslima lii di sakku xam-xam farata la ci bépp koo xam ne góor nga wala jigéen waaye li wér ca wére wér mooy la nga xam ne nii mooy âge d'or ci mën a jàng xam-xam mooy avant ngay am 40 ans góor góorlu leen seen kamtal kattan ci loolu gannaaw ba nag yonent bi alayhi salaam ne góor góorlu leen ci seen wér avant ngeen di wére di aka bëri benn doomu aadama boo xam ne ci benn minute la ko yàlla may santé bu mat sëkk balaa minute bee jeex mu bokk ci ñu paralysé amatul benn kàttan ak bari ñu daan gis ay ndaw ñuy dang-dangi fii tey ña nga tëdd luñ def dañ leen ko defal kon profitool ci wér googu nga xam ne suñu borom yàlla dala ko dénk mayu la ko de yàlla moo ñu dénk ak wér moo ñu dénk kàttan kàttan googu lu mu yàgg-yàgg da koy mësa nangu góor-góorlu leen ci bala koo yàlla subhanahu wa taala di dindi gannaaw ba loolu da ngay gis ne ñaar yooyu yëpp ndaw ñoo ci gën a am la nga xam ne luñ cee taxawee mu ne bu la yàlla mayee alal góor góor lul ci alal ji balaa ak ñàkk ñëw ñàkk googu dana doon ñaar alal ji dem bàyyi la wala yow nga dem ba ko soo demee ba ko ñàkk nga ko say ndono ñoo ko yor su demee bala waxi na pi gannaaw ba mu ne bi nga toogee amoo loo def ay waay profitoo ci balaa soxla di ñëw mbokk jullit du toog amul lu mu def jullit foo war a toog yaa ngi nekk ci loo xam ne mi ngi lay jëriñ sa àdduna wala di la jëriñ sa àllaaxir borom xam-xam yu jëkkee dañ daan bañ gis ndaw boo xam ne dafa nekk rek ci loo xam ne amalu ko njëriñu àdduna amalu ko njëriñu àllaaxira waxuma nag ay mag moom loolee ngeen profitoo ci gannaaw ba profitoo leen seen dund balaa dee di ñëw ca mbokk dee it mi ngi noonu doon loo xam ne lu mën a bette la tey jii bu ñuy wax kii di imaamul buxaari rahimahullah ki nga xam ne gannaaw téereb yàlla bi moo bàyyi lislaam loo xam ne nii moo ëpp njëriñ ci lu jullit ñi di jëfandikoo muy saxiixul Buxaari kañ la commencé bind saxiixul Buxaari bi mu amee 17 ans dundam gépp mu jagleel ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na way bu siiw bu mu daan way e waay yow mi nga xam ne da nga am jot am jot googee jël ko delloo ko sa borom ndax xamoo ne déedéy bari na lool di bettaate rahimahullah Buxaari da ngay gis ne déew gu bette moo ko rey déew gu bette feebarul deful dara déew gu bette moo ko rey loolee kon di benn ton benn yóbbante boo xam ne bépp jeune war naa bën a góorgóorlu mu man ana lan lay def lu may jëriñi sama diggante ak sama borom waaye nag mu xam la gën a am solo lan lay def ba jëriñ société bi nga xam ne ci la nekk ay yow dawal julit góorgóorlul jàngal loo mën a jàng jàngale médecine jàngal informatique jàngal lu mën a doon donte ne nga xam ne priorité jàng yi mooy nga jàng sa diini loo mën a jàng te jàngoo sa diine égal zéro perte nga àdduna ak àllaaxira am maa gannaaw jàng sa diine fexeel am xam-xam fexeel am alal fexeel am ay pexe yoo xam ne da nga ca jëriñe doomu aadama yi yonent bi alei salatu wasalaam daana wax ne ma ànd ak sama mbokk jullit ca aadoom ba aada ba faju moo ma gënal ma tëju sama jàkk ji ci Madina pendant un mois di fi def itikaaf loolu it mooy la gën lu ñuy jeexale suñu temps te mooy fexe def loo xam ne doomu aadama yi dañ ciy doon di ci jëriñu e yéen mbokk julit ñu bari ci yéen dégg nañu alam nashrah laka sadrak saar boobee lan lañ suñu borom di wax ci loolu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ida faragta fansab wa ila rabbika farghab ey yow yonent bi heure boo paree ci say jaamu yàlla jógal dem ci beneen jaamu yàlla heure boo paree ci boobu jógal dem ci beneen ca mbokk jullit mi ngi noonu mooy ki nga xam ne léppam day xalaat naka lay doone jaamu yàlla tey jii bu ngeen jógee fii seen jumaa ji ngeen dem tim seenub añ añ boobee jaamu yàlla la booy lekk waxal bismillah soo lekkee ba pare waxal alhamdulillah fekk faggu ngeen ko faggu nu dagan loolee jaamu yàlla la lal ba ngay dem di noppalu tëdd ngiree am kattan ba booy julli doo julli ci ngëmmint booy julli yaa ngi ànd ak énergie loolu jaamu yàlla la ba yonent bi alei salaam dem ba wax ñu ci sax lu jaaxaloon sahaaba ya ànd gi ngeen di ànd ak seen soxna ca kaw lal ya jaamu yàlla la sahaaba yi yéemu ci loolu mu ne na am jaamu yàlla la ala kulli xaal mbokk jullit mi ngi noonu mooy kiy xool dundam bañ cee ñàkk dara lépp jëriñ ko jëriñ ba ndax jëriñu àdduna laa bu dee loolu yéefir yi ñooñ ci raw te duñ leen dab ba ila yawmi din bokk yéefir yi buñ taxawoon cent ans sax duñ leen dab kon fen dong lañ leen mën a rawee mooy àdduna joojee nañ koy dàqe ñun bu ñu koy dàq dañ koy dàq ci lumière l'islam lañu ci yàlla daganal la ñuy jël lañu ci yàlla xaraamal ñu bàyyi ko lan ci yàlla jote wërsëgal ñu fexe delloo ko ci ngërëmal yàlla jalla waala julit waxuñu la toogal bul ut àdduna abadan waxuñu la toogal dëddu àdduna abadan dëddu àdduna mooy bi nga ko amee ba pare sànku la itteelu la ci jaamu yàlla waaye da nga war a sakku xam-xam sakku alal sakku lépp loo lay jëriñ suñu borom jalla waala mu ne ay waayu góorgóorlu leen gaaw leen dellu ci yàlla gaaw leen jébbalu ci yàlla bala leen a mbugal di ñëwal ci betteel mbokk dee betteel yonent bi alayhi salaam nee woon na ci mujjug jamono day bëri lool nee na dana bëri lool déeg betteel comme nam ñu waxe woon ne dee dana bëri de manière générale da ngay gis ku rey du ki muy rey du xam lu tax mu rey ko da ngay gis ku ñu rey ca moom xamul lu tax ñu rey ko mi ngi noonu bokk na ci misaal yi gën a kawe loo xam ne presse internationale génne nañ ko kii di ambassadeur Arabie Saoudite ma nga nekk ca Égypte congrès lay def international gars yi ñëw mi ngi taxaw fii ma taxaw wax benn discours assemblée bi yépp tàcc ko mu taxawaat di waxaat ba mujj mën a këpp daanu loolu mooy deyam loo xam ne ci semaine bi rek la lii mbokk ak mille misaal yi ñu ci mën a am mooy suñu borom mën a kon gaaw leen dellu seen borom bala ñu leen a delloo ci seen borom balaa mbugal di leen ñëwal ci betteel su ko defee na nga yuuxu ci kanamu malaaka yi ay yàlla nañ ma delloo ma def lu baax ci gàttañ lu gi ma gàttañ lu woon yaa xasrata ala ma farrattu fi janbillah ngiree ay yàlla maa ngi wax sama alkaange ngir la ma gàttañ lu woon sama wàllu yàlla sama sama diggante sama borom njaboot ga fa lillahi alhamd tabaxal naa leen kër gu rafet ginaar ba ñuy añee dara manqué wu fa lépp lu liggéey bi mi ngi noonu tax defar naa ay société defar naa nangam waaye nag fàtte woon ne digganteem ak boromam yaa xasrata ala ma farratu fi jambillah e waay perte maa ngi wax sama perte ci di ma ñàkk sama diggante ak sama borom e waay nañ ma delloo tuuti rek e waay su ma amoon beneen occasion kon day danaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafetal mbokk jamono bii may wax ak yéen am na ay junni nit ñi ngi ci loxoy malaaka yi di wax wax jii ma leen wax ak a neexoon ma amoon occasion dundaat bokk ci ñuy rafetal yéen yàlla may na leen occasion yéen a ngi nii di dund góorgóorlu leen bokk ci ñi rafetal rafetal mooy ngeen rafetal seen diggante ak seen boroom bañ koo ja bañ koo bokkaale ak dara def ay ndigalam bàyyi ko xel ca xam ne fu ngeen mën a nekk mi ngi leen di gis gannaaw ba ngeen rafetal ci digganteem ak jaami yàlla yi fexe ba toujours fu ngeen mën a nekk di xalaat naka lay def ba jëriñ jaamu yàlla yi waaye doo xalaat mukk naka lay def ba lor jaamu yàlla yi mbokk suñu borom yàlla loolu la ñuy wax nee na amul kenn koo xamee ne nii da nga sàgganoon di dee lu dul yaa ngi ñaan yàlla ay yàlla soo ma delloo woon delloo ma yàlla ngiree ma def lu baax delloo ma la'alli a'malu saalihan fi ma tarakt ngiree ma def lu baax loolee ku nekk ci ñun war a góorgóorlu ñu xoolaat suñu temps yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ demee ba mujjug jamono nee na temps dafay gaaw taqaarubu zaman nee na bon balaa adduna tukki nit ñi daan dund ci ay mbir yoo xam ne at bi day mel ne weer weer mel ne semaine semaine mel ne jour tey lu bëri nit ñi dañ koy wax waa gaa yi gis ngeen ajjuma ak ajjuma ni mu gaawee gis ngeen dimanche ak dimanche ni mu gaawee benn événement day am ñu ne waa nanga i mais pourtant loolu am na trois ans quatre ans te yow da ngay jàpp ne daaw la amoon kon temps barkeelatul lu ko waral mooy doomu aadama yi li leen di itteel day bari bari bari bari seen temps yépp ñu jagleel ko loolu rawatina xiiwal gi ñu yàlla def tàggatal ñu ko muy portable waaye muy musiba boo xam ne nii kenn xamul ñaata la alak ci jaami yàlla yi yàlla na yàlla musul ñu ci doomu aadama yi noonu ñuy sóoboo information yu dul jeex xabaar yu dul jeex di tegaloo seen biir temps bi buy dem sax duñ ko yëg donte ne ni ñëw na ci ay hadis mooy yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne bokk na luy rafetal diine yi doomu aadama bi muy xool lépp lu ko amulul njëriñ mu bàyyi ko même bu ci amee tuuti ixtilaaf ci borom xam-xam yi waaye la nga xam ne wér na mu ñëw ci saxihu muslim yenent mu ne ihris ala ma yanfawuk ay yow julit bul nekk di xër lu dul ci lu lay jëriñ lépp loo xam ne du la jëriñ bàyyi ko foofu tey mille et une information yi nga xam ne am na ci youtube bi am na ci whatsapp yi am na ci statut yi ban njëriñ la amal nga jël sa temps bi yëpp tegleel ko ci ma gaa yi ndax xam ngeen benn minute ñaata xul wala waa xam nga ci mën a tari ma ndax gaa yi xam ngeen benn minute ñaata subhanallah bi hamdihi subhanallah bi hamdihi boo delloo kër nga xool ko xoolal sa sa sa sa montre wala sa portable nga commencé rek une minute waxuma heure waxuma jour une minute ñaata subhanallah ñaata astaghfirullah ñaata allahumma salli ala muhammad nga mën a def ci une minute gannaaw ba nag nga xool sa bopp ma man ñaata temps lay jagleel sama portable ak lu ma amulul njëriñ su ko defee mbokk jullit suñu borom yàlla jalla wa ala dañoo wàcceel benn saar boo xam ne nii jàpp naa lu ëpp ci yéen mokkal ngeen ko ca mooy la nga xam ne mooy wal asr wal asr suñu borom moo gin ci temps le temps borom xam-xam yi séddale nañ ko égal année mois jour heure minute ba ay seconde loolu lépp temps la borom bi mu ne mi ngi waat ci temps doomu aadama dañoo perte le ëpp ci doomu aadama yi temps bi leen yàlla may perte nañ ca lu waral loolu mooy jëfandikoo wuñ ko fu baax kii nga xam ne mooy xasanul basri daana wax ne ay yow doomu aadama xam leen ni bis bu xëy ci yow dana wax ak yow ay yow doomu aadama man kat maa ngi nii ñëw naa tey laa ma sa ñëw tey laa ma sa ñëw dootuma ñëwaat ba ilaa yawmi diin tey mooy ñaar fukki fan ak juróom ñetti ci weeru muharram moom la ñuy wax le 27 août 2022 musul am ci àdduna dootul am ba ilaa yawmi din e yow doomu aadama profité ci man maa ngi ñëw di seede di ngay nar a def dootuma dellu si nag ba ilaa yawmi din moo tax Hasanul Basri boobu daana wax tey jii bu tubaab bi naan le temps c'est de l'argent Hasanul Basri mu ne wallahi man day ñi ma jot a xam ci ay sahaaba seen temps moo leen gënaloon seen alal seen alal fu ne mën nañ ko faa def waaye seen temps daawuñu ko def lu dul fu ngërëmal yàlla nekk seen temps moo leen gënaloon seen alal loolee kon moom la borom bi wax ne mi ngi waat ci temps doomu aadama dañoo perte xanaa lu dul ña nga xam ne dañoo gëm jàng nañ diine yàlla ji ba xam ko daal di doon ñoo xam ne dañuy jëfee la nga xam ne muy diine yàlla ji dénk ko la nga xam ne mooy seeni moroom ñoom ñépp ñu ànd dénk daal di muñ muñ bokk na ci muñ mooy muñ lépp loo xam ne nii nekkul loola amul ak njëriñ mbokk julit borom boobu subhanahu wa taala bi mu ñu waxee ci saar wu màgg boobee nañu xam ne julit waxuñu ko ne foo tollu del dang-dangi déedéet waaye foo tollu rek bàyyil xel ci lu lay jëriñ yàlla may ñu ca loo xam ne dañoo yomb dafa yomb lool ca mooy allazina yazkuruuna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yàlla mi ngi tagg jaamam yi nga xam ne bu ñu taxawee ña ngay tudd yàlla suñu toogee ña ngay tudd yàlla suñu tëddee ña ngay tudd yàlla kon mi ngi noonu yow malade bi tëdd lal hôpital yow soxna sey togg ca waañ ba yow ku mën a doon man nga ko booleeg la nga xam ne muy zikrullah ay kaddu yoo xam ne ni yu yomb lay doon subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah allahumma salli ala muhammadin wa sallim mooy sa làmmiñ bi sax ci zikrullah xamal ne yow sa waxtu woowu waxtu wu barkeel la sa dund googu dund gu barkeel la lii mbokk mooy la nga xamee ne nii képp koo xam ne nii ab julit la war nay góorgóorlu bàyyiwaat ci xel loolu nañuy jéem a nafaraat suñu bopp ku nekk di xool sama programme journée bi tey lan lay doon rawatina yéen ndaw ñi góor góor lu leen dem jàngi seen diine yow ndawal jullit amal kersa ñu laaj leen nga ne am naa bac am naa maîtrise am naa nangam te buñ la laajee ñaata saara alxuraan nga wattu nga sëggal sa bopp buñ la laajee waaw nu ñuy taayaa nga sëggal sa bopp buñ la laajee ponk lislaam nga sëggal sa bopp ey yow ndawal jullit rusal loolu njàng moomu ñu la dugalal sa bopp ay tubaab a jógee fële indil ñu ko 90 pour cent du leen amal benn njëriñ tous les milliardaires yi nekk suñu réew njàng moomu amulu leen benn njëriñ kon la lay jëriñ ci sa adduna di la jëriñ sa àllaaxira mooy nga fexe ba jàng sa diine diine moo lay niital nooy mën a def ba sa dund barkeel sa dund ri am réussite ak la nga am ci alal lu mu néew néew néew loolee ndaw ñi bàyyiwaat leen ci xel bu baax yal na yàlla barkeelal ñu suñu dund yal na yàlla barkeelal ñu suñuy waxtu yal nañu yàlla musal ñu koy neenal ci lu ñu amulul njëriñ àdduna ak alaxira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana bada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab allahuma habib ilayna aliman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq walisyan wajalna birahmatika min arrashidin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين